bët setagut li ëpp ci sénégalais yi xamuñu ndax làmb ju mag jiy tëgg kii ñuy wax Macky dana ca sëgg te looloo taxoon 23 juin am sens tàbbi ci taarix ba faw am itam solo xeetu xini mini yi lañ doon bañ constitution bu leer nañ boo xamante ne nii la muy tëral kenn du ci am xel yaar rawatina ci wàllu ñaata mandat ak mandat bu nekk ñaata at lañ ciy def mu leer ci bopp ñëpp waaye buñ la laajee nga ni du ma ni waaw du ma ni déet war nga ñoo jógoon 23 juin ñëpp ba ci yow ci sa bopp ma ca bokkoon. démocratie bu tax ñuy wax démocratie dëgg-dëgg nag loolu waru faa mën a am. looloo tax itam ñëpp war a defaru ba ni jog fi mu ne nii waaj. te ñooñee di waaj ku ci dem ba xam ni lii la tax a jóg gëm nga ko nga am yaqin ci ni amu ci lenn loo xamante ne nii war na la cee mën a tax a yokkat wala nga cee dellu ginnaaw nga bañ a xeeb sa bopp la ngay ragal wala lay mën a jurum tiit ci yow bañ a dem ba dellu loola ginnaaw nga xalaat la nga xamante ne ni moom nga yaakaar ak moom nga bëgg def mu tax laa gën a jëm kanam ndaxitam itam fa muy mujj réew mu àndandoo di xeex loo xamante ne ni dafa jub kenn mënut leen ay tey lamb ju mag jooju war a tëgg te kooku ñuy wax war na caa sëgg moo war a doon lam bi ñëpp fi mu ne nii ndax la taxoon jaaduwul woon ca 23 juin 2011 mooy tax du jaaduwaatati ci beneen bis moo tax contrat ak i coowal foncier littoral beeg décret bi ci wàllu honoraria conseil économique ak politiciens yi nga xam ne dañuy transhumé di màngaan di ñëw ak yooyu yëpp baax na waaye entraînement rek la war a doon xeex bu mag bi dëgg-dëgg mooy fexe ba ak lu mu mënti jar troisième mandat bañ fee am ndax loola rek mooy tax ngëneeli démocratie wàlleeku jëriñ ñu ñun ñëpp